asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy topp ci suñu site bi di kokki Buzz TV ñu ngi leen nuyuwaat bu baax euh, xam naa ñuy fàttaliwaat rek di rappelé waat mbokk yi garab bi nga xam ne mooy juróom-ñaari xobi poftan yi ngay fàq togg ko euh, video bi defe naa partagé nañ ko lu mat ñetti yoon li ko waral nag mooy njariñ goo xam ne am na ko mooy njariñ goo xam ne secret bi daf koo am ndax yaakaar naa bañ ko partagé léegi ca bu njëkk ba ba tey li may woo ci ay doomu aadama ci fu nekk nag am na ci ñoo xamante ne dañ naan la bitim réew laa nekk sama mbokk moo ma ko yoon yónnee ma ko ma jëfandikoo ko gis naa ci ay tawféex ñaanal la ca ñaan yoo xam ne rëy na lool euh, loolu mooy suñu càkkutéef manam dañuy bëgg lépp lu ñuy partagé duñ ca coppati dara manam nañ ko waxé noona rek lay doone nga xamné nit ki bu ko jëfëndiko dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu daali di tàggaliko lépp lu ko doon sonal luy xatxati xati adinaam waaw loolu rek moom moy moy moy moy càkkute moy waral coono beek kurtu kurtu ji ak lépp lu ñu xam ci lu baax rek ta mën a jëriñ nit ñi oh, ñu di ko def ndax la cay juddoo mooy fay suñu borom moom lañ ciy xaar ëllëg te rek moom mooy li am solo ndax doomu aadama amul boroom moroomam mënul jariñ moroomam te yàlla namm ko kon njariñ yàlla rek moo ko yor addurru wa nafau min arrahmani laysa min albidaani wa sudaan bu ko defee léeg-léeg sax dama koy wax dama koy xuloo gaa yi ne leen dama di bàyyi nag su may dugal dara ma wax ko ba mu leer nañ ñi ba mel ni midi benn waay jóge ca àll ba ñëw laajaan la ca laaj boo xam ne mën naa lëntal sax far la nga far leeraloo kon juróom-ñaari xobi maa leen ko partagé woon maa leen ko joxoon ci xool bu sedd guyyu nga xam ne dagan kenn ku ne am nga ndigal ci def ko ngir saafaraw waaye am nga ndigal ci defal ko nit moom sëriñ nga buy ñaan am nga ndigalul defal ko nit waaw te loo ko ca defal yàlla na ko yàlla barkeel bu boobaa lum la ca jox leew na la doom mu ne jeexaat yaa ko moom dégg nga baax kon juróom-ñaari xob yi gis nga boo ko wutee ni xob yi tooy laa wutoon dugal ko ci cin li juróom-ñaari xob yi nag léeg-léeg nit woo ma ne ma boo koy wut looy wax man leen man na garab la ma ca xam ci bu may wut mooy toujours lépp lu may jëf dama ciy jëfandikoo sunna mooy bismillah laay wax bismillah nag defe naa amut lu nit war a mën a wax lu ko gën a màgg ndax léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy nuyu garab di ko wax naam lëy wala naam ñas wala naam sant wu leen neex wala seen jat yu ñu cay def donte loola dàquñ ko ndax yonent bi ci ak dundam woowoon na ñu nekkoon Medina ne leen ñi ciy def ay mocco nañ ma gaaral seen mocc yi aaridu alayya ruqaakum kenn ku ne mocc ko ngay mocc mu mu vérifié ko la cay bokkaale mu dindi ñun ñoo taamu bu ñuy wut garab ñuy wax bismillah ndax bismillah kat jàpp na mooy caabi ji gën a mag te yonent bi nee na bépp mbir booy tàmbali te tàmbali woo ko ci bismillah nee na mbir moomee ah bu ca barke amee daal dana ma jaaxal lool kon bismillah moom man moom laay wax su ma koy ut bu defee nga def ko nii def ko ci sa cin togg ko boo koy togg bu la neexee upp ko bu la neexee bul ko upp nag bàyyi nii juróom-ñaari xobi bafsani doo ngay wut bu ci bind dara boo ko toggee nii ba mu ñor boo ko toggee nii ba mu ñor nga teggi ko boo ko teggee nii gis nga xorom si mi ngi nii xorom nga jël sa loxo droite bii mooy sa loxo ndeyjoor nga tibb ko ba mu fees xorom nga def ko ci biir boo ko ci defee nag man ngaa wut dara nga def ko nii yëngal yëngal boo ko yëngalee ba nga xam ne yëf na nag nga daal di teg ba sa yaram ñeme ko nga sangoo ko benn yoon bu ko defee yeneen laaj yi ci rotoon mooy ñi ko doon def dañ naan man ndax mën naa koo def defaat ko bu la neexee man ngaa tegaleendoo ñetti fan def ko bu neexee mën ngaa tegale juróom-ñaari fan def ko bu la neexee man ngaa tegale fukki fan def ko ça dépend yow ci ni ko manee ndax def bi lu mu gën a bëri dafay gën a am efficacité beneen bi ci am na ñu lay laaj ne la ndax bu ma ko defee dafay dindi li mu fekk ko ci sama yaram ci lu baax déedéet lii gàllankoor lay dindi gàllankoor na bu ñu ko waxee mooy lu jëm ci wàllu def wala tëju-tëju yaram wala yaram bu woo xam ne dafa am ay jafe ba boroom munta nelaw wala boroom euh, yaramam diis na daal loolu yaram bu diis moom yaram bu diis rek la bu ko defee kon loolu rek mooy solo si ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, kon xobi paftan ni moo nekk nii juróom-ñaar yi ma baamtuwaat ko boo ko utee ba ñëw boo koy wut mën ngaa wax bismillah bu dee koo xam ne nag day wax naam ña wala naam lay loolu moom la concerne waaye man bismillah laay wax bismillah dégg am na ñuy def bu ñu wut paftan di def xob bu ñu jàpp jàng fatiha soog koo dagg dañuy jàng xob bu dagg jàpp fatiha soog koo dagg loolu tamit lu baax la maanaam boo jàppee ci xob yi jàng fatiha ba jeex nga dagg jàppaat ci beneen xob jàng fatiha ba jeex nga dagg loolu it tabaarakallah lu am solo la. ndax alquran la waye dal man bismillah lay wax dal di dag boko dagge pare nga ñew jël sa juroom ñaari xop jël sa ciin def ci lo xare man nga ko sango ben yon ni ndox lu toll ak ñetti liter wala ñent mi bu ko uppe baax na la loolu la mën a nga togg ko ba mu ñor bo togge ba mu ñor nga teggi bo teggee nak nga dal di tibbu xorom bam fess ci sa loxo nday def ci dal di ko yëngal boko ko ba noppi nii nag euh, daal di ba sa yaram nyameko. ko manam do bayyi bam seet bu guuy bahasa da nga bayyi ba sa yaram nyameko. ko nga sangoo ko benn yoon bu la neexee ne nga wut juróom-ñaari xob def ko tey bu subaa nga utaat juróom-ñaari xob defaat ko gannaaw suba nga utaat juróom-ñaari xob defaat ko gannaaw waati suba nga utaat juróom xob defaat ko tegale ko bu la neexee ba muy ñetti fan bu la neexee nga def weer wu nekk nga def ko ci benn yoon wala weer wu nekk nga def ko ñaar yoon ndax paftan moom am na ci dëkku taax yi am na ci dëkku àll yi boo ko defee garab gi di paftan ñu xam ne tamit ne garab gi dafa am tooke ba boo koy sangoo boo dem da nga moytandiku mu bañ a jege maanaam li jege say côté bët mu bañ koo laal loolu moo gën bu mënee jege say bët bu ko mënee bañ a jege moo gën maanaam nga moytu mu laal say bët mën ngaa sangu nag te du laal say bët loolu moom moo gën waaye waxuñu la nga sën mu ko wala dugal ko ci say bët boo ko ci defee boo gumba yaa gumbal sa bopp waaye Seydina Nuhin moom gumbaalul la ndax wax na lu leer dégg am na ñoo xam ne nag luñ dugg mu ëpp Sénégalais moom lu mu dugg mu ëpp ndax lu ñuy sangoo saafara dañuy defe ne bu tuuru cangaay li du baax saafara na sa yaram tooy rek moo ci am solo da nga baax kon gis ngeen ko nii fa tabaarakallaahu muy lu am solo lool te gàtt lool te bëri njariñ lool bis bu sa yaram dee diis wala fa tabaarakallaahu nga jàppale dañ laa liggéey wala cat daf laa tëj def ko rek nga essayé nga xool bari na ñu ko def daal ñëw wax ci résultat defe naa am na audio yu ñu ci defoon sax ay bokku taalibe yu ci defoon ay audio yónnee ñu ko bañ monté woon ko dugal ko ci chaîne bi ay témoignage yu am solo ci ñoo xamante ne mosuñu leen a teg bët te ñi nga xamante ne wax nañ lim leen jariñ te dugaluñ ko mu ëpp loolu nag di ak sant yàlla bu baax a baax a baax kon mbokk yi nga xamante ne dañoo jël suñu numéro di ñu woo léeg-léeg nga gis nit ne la man de ba ma jëlee sa numéro léegi mat na ñeenti weer maa ngi lay woo waaye mënuma laa jot waaye bëgg naa laa gis mënuma laa gis ñi ngi lay diggal demal nga jël bii nga def ko ah nga bu dee ay jafe-jafe yaram la nga saxoo ko di ko def ba suñ borom di dogal ñu war a gisante ndax loo ma bëgg a gis bëgg maa gis te suñ borom dogalut ma war laa gis doo ma gis bu suñ borom dogalee ne war nañoo gisante bala maa faatu wala bala ngaa faatu danañ gisante ndax ruux yi suñ borom boole na leen avant ñu ñëw ci àddina ku ci war a gisanteeg sa morom rek da ko gis ku ci war a jariñ sa morom da ko jariñ ku la ci war a indil xaalis war la koo jox kooku fu mën di nekk ci àddina dana ko indi ba jox la ko koo ci war a jox sa xam-xamit fu mën a nekk dana la ko jox ndax al arwaaxu junudun mujannada ruu yi dañoo am connexion boo xam ne avant ñuy ñëw àddina la woon maa taarafa mina ñu ca xamante rek yàgg-yàgg lu àddina gudd gudd tànk danañ dem ba danañ gisante waaye nag maata naakara mi na talaf ko warut a gisante wala ko warut a jëflanteel du ngeen jëflante léeg-léeg mooy tax léeg-léeg nit dana ñëw xam la ñëw ñetti fan rek teg la pression daal di jàmbat jàmbat ba mu neex ko nga xëy suba gis ko rek mu gedd dem loolu day wane ne rek xay na yàlla dugul ngir war a gisante léeg-léeg sax mu gedd gedd ba mu yàgg ah, fa tabarakallah mu del siwaat ñëwaat waaw ah, mooy yooyu nag nañ koy moytandiku ndax gedd moom baaxul day partagé te yàlla doo nga tax mu di ko partagé xaaru ci dara nag xaaru ci dara ndax yaakaar naa bu doonte ne tey dañ ciy xaar dara wala ñu ciy xaar wërsëg kon bët bu set suñuy poos mën na jaafees ndax yaakaar naa li lay woote duñ la mën a jot mu ëpp foofu li lay woo di la jot kon njariñante gi moo ñu ci ëppal solo bu ñu neexoon tamit suñu xam-xam la dañu koy garder bu ñu waxee ba ca digg ba ñu ne ah nii kat lii lay jariñ waaye ku ko soxla da ngay déplacé wu ñëw ci ñun làmbu sa ji ba fay sa xaalis lu ñu neex bu boobaa nag ñu fayu ko ca waaw lu ñu neex bu boobaa ñu fayu ko ca ndax bañ koy sàkku ci kenn dimbali wuñu woon ci dara moo tax kon comme jox nañ leen ko nii muy gratuitement ñu wax ko ba mu leer nit ki da ngay jéem a def efor nga jéem koo defal sa bopp kon xobu pafsan yi mi ngi nii ma baamtuwaat ko ngir ñiy laaj jigéen bu setul mën na koo utiliser jigéen bu setul mën na koo utiliser ñàkk set nag ñaar la imma mu am doom wala mu gis règle wala sax mu wara sangu farat te sangogul sax man nako sangu kon jàngaay bi bañul dara de nga bax man nga ko sangoo ci toilette tamit ñi naan ma tamit ndax man nañ ko def ci leget sangaay bi man nga ko def ci leget man nga ko def ci bor en tout cas li ci am solo moy togg ko ci ndam même bu la neexee ci li nga ko ni man nga ko ci baye def ci xorom si nga sango ko ci non wañul dara de nga bax kon mi ngi ci doom ñaari xol baftaan dong la Seydina Nuhin mo la ko jox mo len ko baxé mo len koy leral sax lay wax ndax ñi ci faju bari na lool fa juróom-ñaari xob bi poftan ngay wut poftan yàlla moo ko bind muy garab goo xamante ne garab gu màgg la bu ko defee garab yi nag am na secret bu nekk ci ñoom te ñu bari xamuñ ko li tax ñuy faj mooy garab amul bàkkaar te garab dafay sàbbal suñ boroom dafay tudd suñ boroom ndax moo tax suñ boroom ne wa in min sayin illaa yusabbihu bi hamdihi amul lenn lu ma bind lu dul ne dana ma sàbbal damay tudd moo tax garab boo gisee xob yi di upp nii di upp di di jaayu nga defee ne day jaayu noonu yemul ci lool de day màggal suñu borom subhanahu wa asamaan si sax day màggal suñu borom gis nga dënnu yi dañuy dënnu asamaan si di melax ah, subhaana man yusabbihu raadu bi hamdi gis nga yusabbihu yusabbihu arraadu bi hamdihi gis nga dënnu gi sax buy dënnu day sàbbaal suñu borom di ko tudd comme ni làmmiñ ci tuddee yàlla naan subhaanallah noonu la garab yi di ko defee te garab amul bàkkaar moo tax gis nga buñ ko defee médicament day mën a faj léeg-léeg bopp metti nga dem ñu jox la médicament mu faj la garab la léeg-léeg sa yaram di diis nga sangoo postan mu dañ garab la léeg-léeg ñu liggéey la nga yaa nga sangoo garab mu dañ loolu la léeg-léeg nga sa wërsëg tëju nga bëgg bàyyi rek nga dem wut ko ci garab yi fa tabaarakallaahu lu am solo la bu ko defee euh, cuuraayu saytaane yi tamit danañ ci am boo xamante ne dinañ ko partagé ci wàllu paftan dañuy ànd ak neefere giléem ñi nga xamante ne ngelaw saytaan da na solo doonte am na buñ ci njëkkoon a partagé ba ñu bëree bëri macha allah am na ci ñoo xam sax ñëw nañ fi ba ñu may leen ci waaye boobu danañ ko partagé defal leen ko haddiya xaalisatan li wajhi laa boobu moom def gis la képp ku ngelaw saytaane sol boo ko defee ca saase incha allah du mat ay bis yàlla mën naa dogal nga gis ca résultat ba ngelaw saytaan day dañ ci yow ba tàggalikoo yow kon xobi parsan daal gini, ngi nii juróom-ñaari ngay toog ba mu ñor boo ko teggee nga tibb sa loxo nday jor ba mu fees ak xorom nga def ci bàyyi ba sa yaram ñeme ko nga ko benn yoon kon xam naa ne foofu la tënk bi di yem defe naa nag lii moom bu jàllee xam naa yaakaar naa ah ku yor xelum nit doo fi ñëwaat di ma laajaat naan nan lañ koy defee waaw kon nañ ci yem foofu incha allah إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله